Okay. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi fii ci buntu kër Modou Anta numéro 2 ci Ersan ñu jàkkaarloo ko foule bi nga xamante ni moom Modou Anta drainé ñuy waaj pour jëm stade pour la DPS yi nekk émission boo xam mooy émission topp mbër ñu jugoon dox ci di ci wax toppalante signature contrat yi euh, open press yi bàyyeeg si tey ci bis bi mu nekk bés boo xamante ni Modou Anta koy waaj ni mu ko war a waajee ki mbokkam presse baa ngi jàkkaarloo ak ful bi nga xamante ne ñoo taxaw ci buntu kër Modou Anta euh, ñu jàkkaarloo ko euh, le grand champion Vieux Diallo mu géré xale yi ci benn école de lutte bu ñuy wax école de lutte Vieux Diallo kon Vieux Diallo nuyu na la. Euh, Alioune Gueye maa ngi lay siyaar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi sam suñu ñaari waajur di la sargal nag ci bis bi ak déplacement bi nga def ngir ñun kontaan nañ bu baax. waa Vieux ñun bëggoonoo xam nan nga waajee bis bi ak bis bi fan la toll ci yow. Euh, Alioune Gueye di wax ne bis bu ma gën a ñoree ni bis bi mësta am bis bu ma gën a ñoree ni bis bi mësta am ndax damaa xam coono yi ci mbër mi daj ak dayoy bis bi ak adversaire bi ñuy dajeel. lan moo waral. non damaa xam dayo dayo bis bi ak adversaire bi ñuy dajeel ndax adversaire bi ñuy dajeel dafa bari ay qualité champion la ndax nit da nga koy nangul li ko yàlla defal pour yow boo ko daanee am fu la mën a yóbbu waaye boo ne xamul dara boo ko daanee du la yóbbu fenn loolu moo tax. waaw mu mel ni Vieux gis nañ la nga ñew taxawu tay xalé yi nga xamanteni ñoom la la yalla bolel ñu gis ni ci suba ji yaangi déplacer won dem ci kër mbeur ah tay ci bëcëg gi nga ñew yeggale ci ko fi mu mel ni parparloo nekkul ci sa yow ya xalé yi. non alen ngey man yalla mo mën to lamb waye man amna leneen lu mo mën def lu dul lamb kon ñi la bëgg ngir loolu nak dañ la wara jaral ngay déplacer wu dem ci ñoom tay ji bima démé kër boy Mbambara wax deug yalla ay famille ñëpp dañoo contane jël ma tatagal ma te ma noo xam ne man sama dayoo sax tollul foofu. macha allah mu mel ni léegi lañ demoon dem jëli booy bambara mais yàlla dafa dogal bi ñuy dem bay tolloog tableau kër Moon Njaay bi ci lañ dajanteeg moom muy ñëw mais dawal naa moto bi def a sax ndax daw naa ay xel ba dab ko xamal ko ni carrément sa kër lañ ñëw laa doon jëm si. mais yàlla dafa dogal ma ñëw dikk daje ak yow euh, di la wax ni rek ñëwoon nañ sa kër wax nañ ñu xeebuñu kenn. Euh, ñooruwuñu kenn amuñu mbër bu mag amuñu mbër bu ndaw. Mhm. li ñu am mooy ay lutteurs yi entraîné nekk élève nangu war a nangu ko leen jàngal te nangu nañ ko. ñu jëm ci bés boo xamante nii nag tey mu ngi nekk ci diggante laay Pythagore soxor clé ñu gis ci wës jàmbaar naa la Baye Fall gis ci laay Dakar gi nguuda bu ngent ñu bëggoon a xam combat yooyu fan la toll ci yow ak combat yooyu lan la war a def tey ci journée combat yooyu Alioune rakk rek ñoo ciy bëri ku ci mel ne naa la Baye Fall sama rakk la di ko ñaanal ndam lu see dugg ci bis boobu mu jëm ku ci mel ne laay Dakar gi moom it sama rakk la presque ci combat bi doon la ñëw foofu di di ne foofu kon moom it ndam rek laa koy ñaanal di ñaanal laay góor mi nga xam ne mooy champion kees suñu borom suturaal ko moom ci bis bii mu jëm waaye nag li may ñaanal ñooñu ñëpp Modou Anta Gueye yàlla na ko yàlla suturaal bis bii may ko ndam lu sedd guyi ndax xam naa coono yi mu daj te xam naa li sama kanam di ma xaar te ndam rek moo mu mën a yeggale foofu te incha allahu rabbi incha di dinañ ko am mu mel ni tey koy gis ñu bare bare bare bare tey boo dikkee ci koñ bi day mel ni mitin dafee xew lan moo waral loolu Vieux jàlloo ni mel wala mbër moo bind mbër moo ni bindoo non Vieux Diallo moom du lenn moom Vieux Diallo moom donga daara la rek gu nekk ci daara ji di taar bi waaw ñu am lu ñu yaakaar ci ñun rek ñëw ci ñun ñu koy partagé ak ñoom est-ce daara ni dina ko trouvé lu toll ni école no école bi tur la rek gaa yee ma ko gàcc nii rek waaye li ëpp solo mooy yéene bi ñu am ci booyi ak cofeel gi suñu borom suturaalee rek may leen ndam mu mel ni booy Bambara déplacé déplacé départ na biir këram jëm stade lan ngay wax ci départu booy Bambara jëm biir këram ak Modou Anta mi nga xamante ni moo war a départ dem fekki Boy Bambara. Alioune Gueye loolu moo leen war ndax ñun dañoo nekk ci école boo xam ne dañuy jàng. Mhm. te ay xale boo leen yoree da nga leen a war a wax toogal ñu toog bàyyil ñu bàyyi jàppal ñu jàpp mhm. heure lañ leen jox nit bala ngay respecté que da ngay respecté sa bopp njëkkee. Mhm. boo respecté heure bañ la jox. ndax ëlëk fañ lay daggé vie jàll wu fa Aliou Ndeye wu fa keneen ak keneen wu fa kon da ngay respecté waxtu woowu respecté sa bop respecté adversaire bi nga dajanteel mu mel lan ngay dénk mbeur lan ngay dénk mbeur ak adversaire euh mbeur ak adversaire mbeur ak adversaire da nga jox adversaire tier ba war du té nak li nga liggé mom ngay wané té ñun liggé nañ lo xamné inshallah bis bu arbitre sifflé gën suñu digënté inshallah soxor kélé xaar ma ma ngi ñëw de lan ngay deng na la na la Baye Fall na la Baye Fall li koy wax rek moy ndaw la ta dafa am lu top ci ginnaawam ta bo doonee ndaw am lu top sa ginnaaw amna no wara doxé ta bis bi tamit bok na ci bis yi ñu ñor ndax bu ko daané amna fu mu ko jëmee te champion la ndaanaan la yalla nako yalla defal jàmm. lay Dakar gi ak buude bu ngent lan ngay lay Dakar gi ak buude bu ngent moy limu liggéey rek mom la wara woné tay bu mu may nguunda dara ndax adversaire parisa mu ñeme la sa comportement bu arbitre sifflé nga am leen looy teg dina ni ki dara wala damay teg xel kon limu liggéey ko inshallah yalla nako suñu borom suturaale ta defal ko ndam. allahumma mu melni euh Boy Bambara. lan nga koy denk ci digënté mak adversaire ndax moy bëri premier combat. Boy Bambara mo wara ubi lang gi nak mo wara ubi lang gi tracé. boy yoy yépp jaar ci nak mo Anta ñew tracé mu neex lay ñew tracé mu neex te inshallah rabbi suñu borom dina def yàlla na yàlla dogal loolu suñu borom dina def loolu foofu la ñuy tàqalikoo ak Dieng. Mhm. mu nekk le grand champion nekk coach boo xamee kenn natable wu ko ci Thiès. Mhm. bu demee ba mën fee am tur lu tol ni école de lutte Vieux Diallo. Mhm. magu fi waaye jëfam moo ni mel ñu sargalee ko bés boobu jox ko ndax xam ni moom moo ko yeeyoo ñu defal ko ko kon Vieux ñu ngi sant baax di la gërëm. dila ñaanal jamm di ko ci yow dila wax ni mbëri nga yobbu mm-hmm. ñom ñep yalla leen yalla may ndam mm-hmm. ndax euh, nit kat boko setse mm-hmm. mu kañ ñim nekkal wax deug yalla lepp limu ñaan rek nga koy dello kon yalla yalla defal ñu jamm ñu dem ci jamm ñew ci jamm lan ngay wax jeunesse bi ak violence bi jeunesse bi lima ma leen di dénk rek moy nañ ñew ci jàmm supporter seen mbeur suñu borom defal ko ndam ñu ànd ñibbi si wat ci jamm ndax kess yaatu wul yaatu go xamni war nañ fe jaral ñuy xiro wala ñuy ngaayo ño bokku nday ño bokku baye sport moo ñu boole benn temps bu gàtt la bu jeexee jeex na kon nañu yéeneente jàmm te xam ne kenn du am lu ko suñu borom joxul lu fi nit am rek suñu borom moo ko jox. Vieux Diallo ak ni mu toll dayoo bu ndaw la bu tey jii tur wi ma am ci làmb bëri naa ba bàyyi bëri aw ma ko kon boo yi ñëw mu fa yóbbu yàlla na leen yàlla defal jàmm. di la kontaane bu baax nag di la ñaanal jàmm. mu mel ni nan la Baye Fall tey boo amoon loo koy conseillé ci ful bi nga xamante koy conseillé. li ma wax ne ba mu topp public bi ba tax mu gaspiller làmbam mbolo mi luñu bari bari bari na ànd ak daal rek ta cons bis bi ndax amul len lum len meuna mën a lu dul ndam amul len lum len meuna mën a lu dul ndam ndax liñ koy ko ci kasseem bu ko doon wéccé ko téme téme diko sédélé du doy kon ndam rek la ma indi yàlla nako suñu borom defal lool yàlla nako suñu borom defal lool kon ñu dugg ci suñu digënté mhm. ak lay Dakar gi. Mhm. di digganteem ak nguuda bu ngent lan ngay conseiller lay ak lan ngay conseiller wa Darou ñi nga xam ñoy gennu nekk benn ful boo xam laay dina ko drainer ñu jëm stade lan ngay conseiller laay Dakar. laay li ma koy conseiller leen la rek te dafa gëj ci làmb dafa gëj ci làmb te mbër bu gëjee ci làmb dafa war a wane loo xam ne moo koy boolewaat ci làmb mooy li mu liggéey xam na ko adversaire am bu dee daaw bëri na moom ñëpp xam nañ ko bëri na waat fii nii kon am na benn dégagement bu mu def bu ñëwee ci làmb ji mën naa xàppi laay dafa gëj ci làmb kon moom it gi mu gëj ci làmb warul mën a tax mu ñëw téye boppam kon la ñëw déclenché ci kaw adversaire am ndax eh, mbeur boko tege luma lu rek li nek ci xelam du appliquer momit suñu borom sutural ko tebal ko ndam lu seddu guuy di la wax tundu wi rek mhm. tund muusante air cent mhm. daru salam ñun ño bokku nday ño bokku bàyyi ak mhm. écripa land ak jaame ño bokku nday ño bokku bàyyi wax mën ta ñak waye nak li ci xolé ñin ñi xam nañ ko mu melni ni écrit landing jame ñom ñëpp la fi gis tay dafa melni écrit ci suba gi be fi fek na fi ñu bare bare bare bare ta mu melni Modou Anta na ak ñoom seen diggante ak adversaire yi nga xamanteni ñom ñoom la ko séqal bu ko tay ma gis leen ñom ñep ñu ñew taxawu Modou Anta lolu lan la lu ñu xelal Modou Anta la wala Modou Anta lu mu dund ak mbëri la. non na la xamal nak Modou Anta lu mu dund ak mbëri la ndax Modou Anta amul leen lu muy wax ak benn mbeur neena ma topp ma kenn yow vie yàlla yow lay top te kep ko amal jàmm amna ak mom jàmm. ñoñu dañu ñew ñu bokku ruq course bi ni di fa entraîné ndoo bi ñu seen course ni leen bo leen fa fekke vie yàlla bootu leen ci ginnaw lolu lan moko gëna reuy lolu lan moko gëna reuy Kila defal lol nak mayal cër bobu ci bopam kon mëno lu dul delloo ko cër bi di len siar di len bëgg nak di len ñaanal jamm ñoomit bu baax waaw mu melni vie lañ la di la bëgg di la siyaar di la ñaanal jamm ñu dem stade ci jamm ñëwaat ci jamm ci carton suñu borom mu melni amna le grand champion bu ñuy seen mu melni ni Balla bu cheras la Béye Balla ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bëgg di la jox sa action waaw wa rahmatullah ñu nuyu ñu fekk ñu fekk ñëpp rek di nuyu assistance bi di wax ni rek ah ñu ngi taxaw ak le grand champion muy Bébé Balla bu Seras mu bëgg a laaj Bébé Balla lan moo waral teewaayam ci bés bi ak lan moo waral yëg-yëg bii nga xamante ni moom la yëg ci moment bi ñu toll tembee nga xamante ni day yóbbu doomu ndayam di yóbbu xaritam mu war a bëre spécial ci diggante Laay Gote Laay Pythagore doomu ndayam di ci bëre spécial diggante ma ak euh, Soxor Clé euh, champion nuyu naa naa sante yalla bu baax di julli ci bi sant ñaari wajur di sante gaay fi tew ñepp coach yeeg mbër yeeg ñëpp rek staff beeg ñepp ñu japp ci affaire yi di leen bu baax di len gërëm di rafetlu sen taxaway ci bis bi tamit. waaw mu melni champion di rafetlu sen taxaway ci bes bi Mom la champion mujjé ak ñun baay duñ fa yam ak mom champion lan mo waral bes bi tay ji ak taxaway bi nga taxaw ci bes bi lan moko waral. waaw besu tay bi mom nu raw ci wara taxawé mhm. ndax man nu ma ci taxawee rek xeeb naa ko ndax ki ki ki xew la tey moom sama doomu ndey la sama xarit la waaye sama lépp la di ñaan yàlla nag may ko ndam lu sedd guy guy guy guy ndax jaar nañu fu ne dégg na lu def na lu ne ngir man kon tey nii rek laa mën a taxawee te di ko ñaanal yàlla nag may ko ndam lu guy barki borom Touba. waaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barki borom Touba champion bu mel ni tey ji dafa mel ni tey dañ naan Thiès ak Thiès la waaye dafa mel ni face à moo am tey. mu melni ni dafa nek face à face digënté Madina Fall ak Ersan tay mu melni ni lay Dakar gi da ci bëri ak nguura bu ngent naa di ci bëreeg Jambar euh Modou Anta di ci ak soxor kele Boy bambara di ci bëri. Hmm. ñooñu boo amon tay lén lo xamanteni ya ngi koy conseiller lan lay doon. waaw comme d'habitude rek ndax lamb mom defena bo dalé jamm xol li nga wara def xam li nga wara def tek ko ci axe yalla mën la may ndam facilement waaw lamb mom metti na wul comme Mourante numéro 2 li ma koy wax rek dalal jàmm. def ndànk tey ku ne xam ne li soxor ke lay bëgg jàpp la bëgg exploité bu ko may yaa ko daa xeex lépp loo ciy def na wóor na leer yàlla may la ndam nga dem sa yoon. mais loolu est-ce que taxaw seen biir koñ tax nga a daa xeex soxor ke lay ndax mu ngi wàcc i mbokkam. waaw biñ ko seetee xam la ne bu ngeen bëree mu daan leen su ngeen xeexee mu duma leen. waaw loolu moom maanaam euh, nu ñu koy mën a waxee sax. lamb kenn ku ci nekk. li nga yor nga gën a wóolu ko li sa moroom yor. tey jii soxor kële li muy indi. jàpp na ne moo gën fuuf li sa indi. sa waay li muy yóbbu gën gëm na ne moo gën li soxor kële di indi. lan ngeen waajal soxor kële. soxor kële ñu ngi koy waajal ci xeex waajal nañ ko ci bëree waajal nañ ko ci lépp maanaam lu mu def daan. nan ngeen bëgg daane soxor kële yéen. nu ko bëggee rek bu yaroo bëree ci discipline ñu jàpp ko daan ko ci ferpele play ñu dem ñibbi bu xeexee na duma ko mu tëdd ku ne dem match bi lan ngay conseillé naan la Baye Fall ak Weuz Diambar naan la Baye Fall Weuz Diambar comme d'habitude ñooñu ay dañoo mën a bëre ñooñu xeex loo leen rayante loo leen def loo leen nañ kaf ñoom rek gauche droite jàpp daan mu jeex ñu dem ñibbi lan ngay xelal lay Dakar geen guudamu génn comme d'habitude lour la del dóor di déplacé wu di dóor di déplacé wu bu jumee foo ko jàpp jeex na laay dafa mën a bëre booy bambara lan nga koy wax na ñëw rek ubbi bunt bi moom mooy bëre premier bunt bi gars yi jàll na ñëw rek daan kon mu mel ni kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax mu nekk le grand champion leneen li ci des nag mooy champion gëj nañ laa gis nga teew ci làmb lan moo waral loolu waaw làmb moom léegi rek incha allah maa ngi ci waaw waaw maa ngi ci bu baax bon xam rek nekk ci ay réglage yu ndaw bon yaa ma gën a xam mais ñu ngi ci daal dañuy ah. ñëwaat léegi ak doole ju bëri kon champion sant nañ la gërëm nañ la di la jaar di la bëgge bu baax di la la jàmm jaajëf bëgge champion ngi nii di nek mborum ersa nek mborum mbërum ersa am jufen nek mborum dox xalé baangi baa ma sha allah wax deug yalla li rafetna ma sha allah sha allah su ko ben bi kabar jëm penku auto yaangi taxaw supporter yaa ngi dal wër ko ah ma sha allah mu doonta mu ngi rango ben sagat sagat mu vert am lu jaune ak lu wex lan waral lolu mu doonta ah lamu ji war. waaye nag lamba ni jar moo ko jëriñ tekki waaw tourné na kàbbar jëm ci biir kër gi ñu génnee kon mu mel ni ay tegtal la lamb lii mooy lamb lamb lii mooy lamb kon mu mel ni tey jii ñu ngi fii ci buntu kër Modou Anta numéro 2 ci R100 mu nekk koo xamante ni vraiment wax dëgg yàlla kenn dootu ko naatable kenn dootu ko laajte ci wàllu. gi dégg nga waaw mu doon taa ngay mu doon taa ngay waaw loolu loolu loolu am na. mbokk ndey koy jur. champion taxaw na champion yi dox mu ngi dox li masha allah masya allah si barka yaa ngi lan loo xamante nii rek mu ngi taaral làmb ji tey jii mbër def na ko indi na cosaan indi na aada laa ilaaha illallaah mbër la ñu nii nañ ci bàyyi xel nañ ko xel bi nañ ko xel te ñaanal ko xam ni suñu borom bi ah ñaan la gën a yelloo sant doomu bi.

waaye avenir a ngi noonu ma jàkkaarloog avenir mu taxaw ci wetu di xaar mbër mu yegsi ay waay jom kay jur xale baa ngi noonu xale ko waaw sendal gi mu nek lo xamanteni ni wax deug yalla du kan fi ci Arso ndax fi la yàgg wajay ko mbam tay tey jii na fi ndam déggaat na fi ndam déggaat na fi ndam mu melni mu ngi wat ma sha allah mu ngi wat tam sa fay sotu ben bisel bob ci bob bi mu melni est-ce que du xabtal est-ce bisel bi ni koy sot du xatal est-ce bisel bi du xatal ah mu melni tay tey ni nii buntu kër Ngor moo doon entraîneur bi war a jàkkaarloo diggante ak soxor kale rek ci combat grand combat diggante Laye Gose Laye Pythagore Weuz Jambar naan la Baye Fall na grand combat kon tey lamb wane si na boppam lamb wane si na boppam mbër bu tàkkoo jaaju bu génnee faaw ñu seetaan ko mbër ak seeta yam la ko yàlla jox. a des. ndax fekkee entraîné allah macha allah macha waaw macha allah yal na ko yàlla dogal waaw ñu dox jiitu dem wuy ji waajur mu def ay ñaan ci moom ñu xam ne lii. moom la yàlla dogal ñu ngi koy wax ni ah macha allah lii am na solo lii am na solo lii am na solo lii am na solo lii am na solo lii am na solo mbër ngi saraxe mbër ngay saraxe macha allah macha allah macha allah lamb wane si na boppam lamb wane boppam mbër ngay tey saaku ñaan waa koñam ñëpp ñaanal ko mu dem ci lamb ci bismillahi rahmaani rahim génn faak alhamdulillahi rabbil alamin mbër ngay saraxe waaye eh, xale mel nañ ni sarax bi lañ gën a bëgg sax ka mbër ah li doy na waar mu mel ni tey jii li ma fiy dégg mooy juróom rek la ñuy topp loolu doy na waar loolu lol lol lol lol lol waaw mu borom ni mbërëm cay tegtalam yu mujj mu ngi cay tegtalam yu mujj ci buntu karam di def ay tek tegtalam wa ko ndu génn am di jàmm yi dekk dëkkandoo yu génn kenn ku nek di wax limu xam di ñaanal mbër ngir yalla may ko ndam mbër ñu déglu tay dégg bo dégloo da nga cee war a boole dégg ah kilifa nga koy ñaanal yu bàyyi lolu xel ta xam ni waxi mak day guddee way du fa fanaan àll macha allah taalib Serigne Saliou ngi noonu taalib Serigne Moussa Saliou baa ngi noonu loo wax ni loo bëgg mun la Serigne Saliou laa bëgg kon moo doon te numéro 2 ngi noonu di waaj tollu ci bés ba bés bi yegsi mu fas yéene dem xas-xas loo ji wala njàmbaar fulla fayda ak jom. mu mel ni li yombul ci mbër mu ndaw mu mel ni li a ah, mbër xëppoon na saw mi mbër xëppoon na saw mi mbër xew mbër xëppoon na waa ko yam jën nañu dëppoon njaxli dëppoon njaxli ñu koy fëgg ah dak Ndaly toj na Birame nee na daanu dee ko gënal kon mu mel nii loolu lañ fi jël si woon tey jii mu nekk ci journée Laye Gothé Laye mu mel ni loolu lañ fi jël si tey jii mu nekk ci journée soxor clé Weuz Jambar naa la Baye Fall ñu waaje bi Arsan ak Laye Dakar gi mu nekk loo xamante ne nii vraiment wax dëgg tey dikk nañu fekk fi ngar mi fekk fi njàmbaar fekk population boo xamante ni taxaw nañu taxaw ci mbër vraiment wax dëgg yàlla bu nekk loo xamante ni rafetlu nañ ko lool lool ñu ànd ak moom nag fas yéene jóge fii jëm stade yeggale ci fayal di des ci kàttanu yàlla yàlla ñu ko yàlla defal ci kàttanu suñu borom di nuyu si ñor suma caméraman di ko bëggee di ko ziar di ko jox wàcc waayam baax di wax ni nañu wàcc nekkaat ci beneen heure pour mën a déplacer dem stade ci kàttanu suñu borom jaajëf si ñor kontaan nañ ci yow.